da ngay toog ci banc yi jàng mm. bay bëgg a dee di stressé bay bëgg a dee seen waa kër duñ mën a am ci yow dara yow sa bopp sax sa live doo ci mën a am dara parce que yow li ngay xalaat yëpp mooy jàng boo wàcc yaa ngi révisé taloo dara sa enfant sax dañ la koy sàcc doo mën a màgg normalement parce que li ñu lay surcharger sa cerveau attanoo ko ay cours ay leçons yoo xamante ne jariñu la tous ñu topp la mm-hmm. di la ko sol di la ko sol di la ko sol di la ko sol ba fi ngay màggee ñu ne la mënoo liggéey wala booy liggéey sax imagine Sénégal wala booy liggéey sax salaire boo xamante ne yow munoo ci sax faj say soxla maanaam salaire boo xamante ne yow derrière munoo sax jóg rek ne damaa bëgg a dem vacance jënd sa billet d'avion dem fi nga bëgg a dem maanaam dañ lay fay salaire boo xamante ne say besoin personnel sax munoo ko cee regle waxatuma la nag say besoin famille waxatuma la nag yeneen yi nga xam ne bëgg nga ko cee teg donc mmh. moo tax ma leen di jàng am na solo parce que di nga am xam-xam di am éducation mais éducation bu baax bi nga mën a am sax nekkatul léegi école moo la koy jox.